ci turu coalition citoyenne le peuple bi nga xam ne ñi ngi ko bokk ak ay association ak ay kuréel yu bari ci la ñu wootee tey jii conférence de presse bii nga xam ne ñi ko teewee ñi ngeen gis ay responsable lañ ci coalition citoyenne le peuple li tax ñu woote ko nag mooy que ni ku ne gis na Sénégal depuis euh, fan yii yëpp jaay doole gi nga xam ne moom la nguuru président Macky Sall nekke di dem di jëli ay responsable yoo xam ne defuñu dara ñu leen di dem di jëli guddi ak di fanaan ci seeni buntu kër di xaar fajar jot pour ñu daal di leen jël yóbbu leen dikk di leen bunduxataal ak di leen jaay doole loolu nag bi mu amee nga xam ne mën nañ cee lim ci ñoom ku mel ni le camarade Clédor seen nga xam ni moom dafa bokk ci ñi nga xam ñoo sos kuréel gii nga xam ne mooy le peuple ñu mën cee limite koo xam ni moom mooy Assane Diouf ñu mën cee limite koo xam ni moom mooy Guy Marius Sagna buñ ci dollee nag li nga xam ni moom lañ gis fan yi mooy di jaay doole ñoo xam ni ay responsable politique lañ bay dem sax bay bunduxataal seeni soxna ak di leen won ni sama euh, réew mi man maa ko moom damay jaay doole donc loolu la président Macky Sall nekk fan yi léegi nag loolu moo tax ñu dajale nit ñi pour wax leen réew mi Macky Sall moomu ko réew mi dañ ko koo dénk pour ab diir diir boobu bu jeexee dañoo wala delloo sunum réew ci jàmm moom président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci jaay doole la nekk mais jaay doole bi nag fi mu toll nii da koo gën a yokk fan yi pour bëgg a xoqatal sénégalais yi xoqatal ab pëpp nag mënut a nekk bu dee peuple bi am nañ fulla ñun nag dañoo jàpp ni lii lu ñu war a jeexal la te toll nañ ci nag foo xam ne dañ naan trop c'est trop et olof yi dañ ne lu ëpp tuuru président Macky Sall nag fi mu toll nii commencé na ëppal kon nag ñun tey li tax ñu woote mooy ñu yëgal sénégalais yépp ne lii président Macky Sall def démb jël ay responsable yoo xam defuñu dara da na a euh, woo ca dig pour bunduxataal leen jaay leen doole loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñuy leeral ni même ci forme yi nga xam ne moom lañ leen jële c'est inacceptable parce que convoqué nit bu dee da ngaa am loo xam ne moom nga ko bëgg a laaj mën nga koo def ci respecter ay droit am mais fekk nit koo xam ne deful dara toog këram ngay dem guddi wala nit koo am dafa génn këram di dem ci boutique di jëndi dara nga koy kar di ko jaay doole kooku ay forme de dictature la yoo xam ne kenn mënu ko nangu lu mësul am Sénégal depuis 1960 ba léegi moom la président Macky Sall commencé def naam mi ngi ko doon waajal depuis 2012. naa nag ñun duñ fi nekk di wër-wër comme ñoom yoon wi ñu ko jaare woon gis na ne yàqu na. mooy jiiñ yàkkataan gi nga xam moom lañ jiiñ responsable politique président euh, parti muy Ousmane Sonko bi nga xam moom lañ ko jiiñ te sénégalais yëpp gis ni ci rapport bi nga xam ne moom la gendarmerie def ci PV yi nga moo jóg moo tukkee ci gendarmerie tam nekk ci téléphone sénégalais ak li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ñoom ña nga xam ñoo ko fekke woon ak même moom Adji saar mii tuumaale euh, Ousmane Sonko bu ñu seetee daañ gis ni dara amu ci lépp ay waxi Balla Pouye de la comme waxi Balla Pouye de la te xam nañ ne sénégalais yi du ñu nangu mukk ñu bëgg a wane ni viol moo am alors que sénégalais yëpp xam nañ ne viol amul bu ñu dégloo ñi nga xam ñoo séq mbir mi ndax kenn gisagul ku ñuy violé ngay organiser sa viol te ñëpp gis nañ ne Adji Sarr moo doon góolu Ousmane sonk am ñu nekk ci ginnaaw kon xam nañ ne sénégalais yëpp xam nañ ni lii moom waxi Balla Pouye de la te tegul fenn te mënuñoo jaar fenn ba wan nit ñi ni viol am na léegi nag jaay doole ciy bëgg a des léegi nag ñu taxaw ne dañuy jaay doole maanaam dañuy def lu leen neex jël seen assemblée nationale bi nga xam tekkiwul dara pour ne ko lever immunité parlementaire bi alors que xam na ni lii nga xam ne moo am ci dossier bi wax dëgg yàlla jarul lever immunité parlementaire li nga xam ne moo am ci dossier bi aussi xel mënta nangu ñuy def mandat de dépôt kenn ci sur cette base loolu xam nañ ko ñoom mais président Macky Sall ay loi ki règlement yoonam nekku ci te loolu la ñu woon depuis 2012 jaayi doole bi nag dafa ëpp ñuy wax sénégalais yi ne nañ jël seen responsabilité ñun li ñu mën mooy woote woote fippu fippu dafa jot parce que président Macky Sall moomuñu te sénégalais yi nag gis foo il faut ñu waxante ak ñoom dëgg wan leen ni jot na nag ku ci nekk surtout ñëpp ñi nga yore nañ ay kuréel képp koo xam ci société civile nga bokk képp koo xam ne yaa ngi bokk yaa ngi yore kuréel goo xam parti politique la ak lu mën a doon na nga xam ne sénégalais yi ñun bu ñu jëlu suñuy responsabilité président Macky Sall di toog di seetaan ku ne naan sama yoon nekku ci ak ku ne naan laalaguma dinañu éliminer benn par benn jaay ñu doole imposer dictature Sénégal fii ba deux mille quarante cinq wala deux mille cinquante il faut que sénégalais yi xam loolu. kon nag loolu bu leeree ñu xam ni fi mu toll nii amuñu choix li nu dese mooy ñu fipp résistance foofu lañ toll ñuy woo tous les sénégalais boor bu ñu mën a doot nekk ñu taxaw fippu wan ko ni réew mi moomu ko benn département yi nañu organiser wu région yi nañu organiser wu. quartier yi nañu organiser wu maintenant samedi au niveau de Dakar ñi mën a ñëw ñëpp ñu ñëw taxaw won ko ni lii muy def jaay doole la te jaay doole ñun duñu ko nangu parce que mënuñu koo fal ba noonu mu bëgg ñoo xoqatal di def loo xam ne tegu ko fenn loolu mënul continuer loolu moo tax tey ñoo dajal nit ñi pour wan leen ni fépp jot na sénégalais yi am leen fulla lii mënut a nekk président Macky Sall mënut a nekk fii napp ñëpp ne kenn du wax may may may sa tend joor man may buur lu ma neex laay def ñëpp topp ci ginnaawam mel na ñun ay xar la ñool duñ ko nangu parce que réew mi président Macky Sall ak famille am moomuñu ko. kon loolu la ñu wax message bi loolu la te sénégalais yi ñu bàyyi di yóbbante galgal yóbbante galgal ubul làmb sénégalais yi la ñuy woow réew mi ñun ñoo ko moom de façon pacifique. ñu mobiliser le peuple sénégalais wan ko peuple baa ngi nii président Macky Sall moomoo ñu li nga bëgg a def ni dictature bi nga bëgg a installé ko nangu kooku nag peuple bi peuple bi ñooy rek seen cëggal guy ñoom ñoo mën a ñëw joindre à nous ñu won ko ni réew mi moomu ko une mobilisation forte pacifique pour l'intérêt du Sénégal parce que ñun amuñu intérêt taal réew mi taal mi du suñu intérêt parce que réew mi ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yépp président Sall ak nitam moomuñu ko kon duñu fi def lenn loo xam day taal réew mi bu ñu ruubee naan ñii dañoo bëgg a taal réew mi mais am nañ kiy jiite réew mi teg ko ci yoon ñu dajalee sénégalais yépp won leen ni on fait une mobilisation forte dajale ñépp dans toutes les régions dans tous les départements dans tous les quartiers ñu won ko ne président Macky Sall moomuñu de façon pacifique mais de façon ferme et résolue ñu won ko ne réew mi nag dañ dañoo bëgg dictature bii nga xam ne moom nga ñu bëgg imposer mu dakk loolu mooy message bi ñu doon lancé di ko lancé sénégalais yépp ku ci ne nga bañ a toog sa buntu kër ak de naan man maa ngi leen di soutenir à distance képp kuy kuy ku nekk ci réew mi na nga xam ne le Sénégal est en danger président Macky Sall li mu bëgg a def bu ñu ko nangoo daañ delluwaat ci buumu njaam buumu njaam nag ñoo nangu dellu ci. Mm-hmm. war na ñoo mën a gëm suñu bopp xam ne président Macky Sall jaay dooleem bi ñun rek ñoo ko mën a dakkal ñun sénégalais te mën nañ koo dakkal sans ñu utiliser benn. Euh, benn violence mën nañ koo dakkal saa sans ñu def lenn loo xam ne dañ da daañ ko yàq sunum réew mais ñu dajalee doole ji parce que peuple bu dajaloo ni lii lañ bëgg sunum réew loolu benn président mënu koo résister loolu la ñuy woo sénégal yi donc na ñëpp préparé wu ci loolu pour ñu xam ne président Macky Sall mi ja euh, euh, fippu jot na parce que nag nit mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam te président Macky Sall mi ngi mbéj sénégalais yi bés bu ne dama ne ñun li ñu leer mooy la constitution jox nañu droit ñu manifester ñun dañuy déclarer rek parce que du du demande d'autorisation laaju ñu pour ñu autoriser ñu dañuy laaj dañuy yëgle dañuy yëgle ne danoo war a daje te réew mi amul fenn foo xam ne war nañ ñoo tere ñu mën faa dajalo kon nag suñ suñ ko teree jàpp naa ne ñoom ñoo bëgg jàmmaarloo am kon ñun jàpp nañ ni dañuy dem yëgal leen kon nag kuy yëgale xaaroo ñu jox la parce que ñun constitution moo nu jox kon nag xaaruñu dara ci ñoom yëgal leen rek la def pour mu leer nañ donc ñun incha allah li nu jàpp mooy na sénégale yëpp ñëw ku ci nekk nga bàyyi la ngay def sa kër nga ñëw fekk si foofu ak ak noo ko mën a jaare ñu ñëw fexe ba dajale nit ñi won ko ni ko li bëgg def ci réew mi bëgg ñoo jaay doole duñ ko kon nag sénégalais yëpp dañu la na ñëpp ñëw incha allah pour que ñu won Sénégal ni de façon pacifique mën nañoo dajale le peuple bu ko defee peuple bi won ko ne ko ci jàmm doxalal yoon ci réew mi lii nga yëkkati te tegoo ko ci dëgg teg ko ci suuf réew mi na dox ci yoon parce que euh, jàmm day day lalu ci dëgg kon nag loolu ñun lañ bëgg message boobu lañ bëgg a euh, nguur nguuru euh, président Macky Sall donc am amuñu benn problème ci ci loolu donc ñun dañuy yëgle rek bu incha allah daan ko yëgle suba jàpp ni bu ñu bëggee jàmm nañ ko autoriser bu ko defee nit ñi ñëw massi euh, massivement ñu toog won ko ne ko le peuple est là et le peuple est souverain que le du nangu jaay doole bi mu nekk mu moom président Macky Sall ci réew